li ma yor ko néew ak lu mu ndaw ndaw ndaw boo ko sàccul mën naa cee dund waaye buñ ko sàccee <laughs> damay ñàkk donc la fekk ñoom président Diomaye ak Sonko fexe ba kenn dootul jëlati alalu askan wi di ko sàcc di ko ndeyale di ko sànni ci ay làmb geeg di ko blanchir partout yooyu loolu amatul ban ministre moo am fii fit ñëw jël dara ci luñ la jox naan da nga koy dem jënd jëndi terrain wala da nga koy blanchir fii daan kan moo ko ñemee mais loolu rek la loolu rek xana peuple yeneen yi buñ ko amone dañuy jubil man day sincèrement bo joxo même bo mu joxul dara baye maag li mom moom dama ne alul askan wi rek ñi fexé ba dootuñ ko satti rek lolu ndam lu ngeen da ngant la parce que dëkkub sàcc la dëkkub trian la nga ñafe ba nga xamni ni dañuy commencer dag sen loxo yi dama ne jamono yonentou bi sax dañ doon dag loxo yi parce que dañu xamni ñi ñii rek lañ loolu xet googu la ñu yor fii sàcc lu ñuy jot sàcc ko jàppay sàcc sàcc raaj sàcc sàcc sàcc sàcc quatre-vingt pour cent du peuple Sénégal dañuy sàcc quatre-vingt pour cent laa leen wax nag quatre-vingt pour cent waxuma cent pour cent quatre-vingt sàcc lañ boo demee nag ba commencé di këppati seen loxo yi ñu commencé bàyyi sàcc nga woon leen ni fii maa ngi jaasi islam baa ngi nii ku sàcc damay këppati seen loxo boobu nag gars yi bu ñu arrêté seen loxo sàcc yi rek loolu mun naa développé réew dama ne soxlawul sax leneen même waxuma la importé sàcc laa leen wax nag impôt ci la bokk boo fexee ba nga xam ni délinquants fiscaux yi dootu dañuy fay impo maanaam sàcc yi doon sàcc xaalisu askan wi jaarale ko ci impôt dañuy fay impôt sàcc yi doon sàcc xaa keesu askan wi di ko tibb di ko yóbbu di ko foowee di ci di ci tëddee ay caga di ci di ci financé ay làmb di ci foo di di nax sénégalais yi sàcc yooyu arrêté muy ñaata sàcc yi doon jël suufu Sénégal di ko sàcc di ko jaay arrêté muy ñaata mais loolu rek bénéfice boobu rek loolu mun naa dundal réew contrat finan euh, contrat yi nga xam ne mooy contrat gazier yi ak contrat yi nga xam ne mooy contrat pétrole bi ñu reyante ba renégocier ko il faut ngeen fàttaliku loolu tam dañoo nekk di renégocier fexe nu ñu renégocier Sonko ak Diomaye dañoo fekk fii Macky Sall jël pétrole ba jaay ak rakkam yéen ngay fàttaliku Aliou Sall nga xam ni xamul fef tën ci pétrole bu mu juddoo ba lampe pétrole la xam Aliou Sall bu mu juddoo Fatick lampe pétrole la fa amoon pétrole boobu la xam lampe pétrole mu sotti pétrole ba taal almet ba teg ko boobu la xam bu mu juddoo ñu xëy gis Macky Sall jël lu day ni suñu pétrole ñu découvrir ay pétrole ci suñu réew mu jox ko koo xam ni bu mu njëkkee gis pétrole ba bu muy dee lampe pétrole la xamul mu yor ay contrat di ko bazar nu mu ko neexee jàppee ko mooy pét lampe pétrole boobu mu yoroon këram waaw di tànk di jox rek di tànk di jox gars yi bii am tànkal Cosmos tànkal lii pétrole boobu lampe pétrole boobu foog ni lampe pétrole bu bu Fatick bala donc kon jox na tubaab yi pétrole ba lépp sëdd na leen ak gaz ba moom pour moom gaz bi mooy gaz yu bitaan bii nga xam ni gaz yu deux cent yu doon jënd ak yooyu di ci teg ataayam bu mu nekké fatik moy bonbon de gaz yoy mom pour mom lool la comme nonou mu doon té bonbon de gaz bobu nonou ku ñew jël yóbbu dem tal ki wala tangal ndoxam wala dem tangal bobu la fogné bobu la yor mu jël gaz ba yépp dispersé donc sonku ak jomay dañu ñew gaz bi ak pétrole dañu ñew fekk ñu jox ko tubaab ba jéxal tak donc dañu nekk di renégocier nan lañuy def pour sénégalais mën ci gis sen bopp. loolu nag bu ñu amee ay comptes a rendre kenn du ko rendre du moo la koy jox de du Diomaye de déedéet dañoo fekk ñu jaay alalu askan wa dañoo fekk ñu jaay ñoom ñëpp ay jirim lañ comme yéen Sonko jirim la comme yéen Diomaye jirim la comme yéen alalu Sénégal gii ñu jaay papam dañoo jaay alalam papay Diomaye dañoo jaay alalam Macky Sall moo jaay alalam moo jaay pétrole am ak rakam Aliou Sall yaay jomaay dañu jaay alalam dañ ko agresser jaay alalam gaz bi jaay mais yaay jomaay daf ci bokku sama wax da ci bokku sama yaay da bokku mu ñu ci tous donc ñom seen doomi ñoo ñew naan dañuy xol ñu renégocier contrat yi pour sénégalais gis seen bop té loolu lañ wax tuba bi dañ koy renégocier ñu leen ñew jël suñu pétrole yob 89% wala 90 vingt ñu fi 10% ñun ban jëriñ lañ ci am la kan lañuy tekki te loolu yépp nag kii nga xam ne mooy Macky Sall ak rakkam Aliou Sall ñoom ñoo ko ñoo ko pàccoo ñoo ñoo joxe lépp bii si bii pii Cosmos bii pii ñëw jaay kële ñu ñu séddoo affaire ya mu jël jaayaat kële jaayaat kii affaire ba law donc dañoo nekk di renégocier kon boo leen amee ay compte yu ngeen di rendre Macky ngeen ne nañ ko traqué ji indi ko tëj ko parce que moo jaay seen euh, contrat pétrolier ak gazier moom ak frère am Aliou Sall kon loolu nay leer ci Sénégalais yi Sonko defu ci tous bu muy ñëw fekk na jaay nañ lépp jomaay defu tous lu ñu lu ñu mun nag moom mooy topp gaa yi pour renégocier ko donc ngeen xamee ko li ngeen di dégg ay quatre pour cent nangam dem leen topp Macky Sall maanaam moo ñëw jaay seen kër mi ngi mel nga ñëw gis benn contrat sa papa jaay kër ga nga xool terrain bi xool kër gi liñ ci def yëpp ak doom yëpp doom yi ñëw yëkkati contrat bi fekk na seen papa jaay na kër gi ci cinq millions ñii doga a dañuy xol lan lañ def pour mëna récupérer wat kër gi delloo ko seen i donc ñu ñu wara a traquer ñu ñu wara a ñu ñu amal affaire mom moy ki nga xamni mom moy Macky Sall ak ki nga xamni ñom ñoy Aliou Sall ak euh, association des euh, prostituées de la République qui est la l'APR ngeen xamé ko noonu ni ngeen doonee victime la Sonko doonee victime ci pétrole bi. li ngeen doonee victime ci gaz bi la Sonko ak Diomaye doonee victime ci gaz bi ñi jaay pétrole beeg gaz bi nag ñoom ñoo ñu fi bàyyee tooxi doona yi ñu yokkoon ceeb bi ak ndox mi courant beeg gaz bi ñoo ñu bàyyil tooxi doona yi mooy waa APR ñooñu amuñu lenn lu ñuy wax lan lu ñuy wax lu dul teg seen gat yi kese sinon ñu defante ko ak ñoom ndax liñ fi bàyyi góom yiñ fi bàyyi wérugut góomu xol yi ñi fi bàyyee wërugul ray nañ sañu dom toroxal nañ sañu frère sañu njabot yok nañ lepp mu yéeg ci kaw sap sap donc ñoñu amuñu lulul nopi ci seen wokk ta may ñu jàmm heure bi bu fekkon ni news nañ leen ci kasso yi yaakaar naa ne duñ tal sax wax waaye affaire yee ya yeex man tay buñ ma falon lu may ñëk def duma wañi dara ñom ñëpp la duggal ci kasso bi futti leen bañu set nangu seen kër yépp par force dole mbam genn seen jabo di ci mbedd yi tay buñ ma falon billahi heure bi ñom ñëpp nga ci kasso bi duma en attendant ma leen di tabaxal spécial kasso spécial la leen tabaxal té dara mënul wax ba ma genn leen wow la naa dëgër la naa kenn munul muus sakawaade boo doon yëngal suuf si sax du ma leen génne nangu seen kër yi ba nangu seen silib yi nangu seen kër ba nangu seen almoire yére yi nangu ba nangu seen belefete yaay yi barke rasulaay génne leen ñëpp seen kër yaay yi sax dama koy nangu seen kër papa yi ma nangu seen kër yi ma nangu seen kër doom yi ma nangu seen ñu leen seen kër xarit sax dama koy nangu parce que dama naan est-ce que jaaraloo ko ci yow ñoom ñëpp taxaw fu dëgër nag peuple bi dinañ kontaan ci yow dinañ jubilé nga japp leen futti leen bañu sa dara duñ ko am jël seen compte yëpp gelé dugal leen ci kasso bi loolu laay ñëk a liggéey loolu boo ko sénégalais yëpp jóg jibilé tepp contane nga rendre justice fofu nonu ndam lu reey la billahi bu doon man loolu lay def bala ma wañi dara dina leen traqué ba ci seen pooju nday yi leen di door ci kasso yi di tej di door di tej di door di tej chaque semaine ba ñu fess tepp ci bir ma top seen kër yi di ravager seen kër yi di jël lépp di ravager di tibb rek di jël seen compte banque yi bloqué lépp topp leen dàq leen partout man laa la bu doon man la loolu laay def parce que loolu mooy priorité bi man pour man ku nekk nag ak sa priorité man loolu la suma priorité man bu doon man la mais dañoo am tuuti chance wàññi bu re re re re re waye gis nga xam nga motax ñu naan gaay duggal nañ 54 milliards pour mëna a li pour ñu comprendre ok gaay yi bi Pakistan la Siam hmm ay ceebu euh, yéen doo leen lek ceebu waalo n'est-ce pas Pakistan Pakistan ay ñoko ñoko ñoko ñoo bay wa Siam ño bay Siam ba ribrisé bi wa taiwan Taïwan ñoo ko ñoo ko bay deng voilà boo bëggee ceeb bi doon cinquante franc kilo da ngay jóg yow mii bay jël sa papa mu bay jël sa yaay mu bay jël sa maam mu bay ñu dugg ci àll bi yëpp bay ko ba ñun ñëpp futtee ko bay ko bu boobaa nag doo doo dégg ay ceebu Inde ay ceebu da ngay dégg ay ceebu Taïwan ngay dégg ceebu Sénégal bu boobaa mun na leen mun nañ leen ko def kilo cinquante franc waaye ceebu jàmbur nga jóge fii déplacé wu jënd ceebu jàmbur ci dëkkam indi def lépp indi ko nga ko jaayee cinquante franc loolu xanaa da ngaa xanaa da ngaa sàcc ceebu jàmbur. nan la benn commerçant di dem di dem jënd ci grossiste ba benn saaku ceeb mu dem jëndee ko vingt mille cinq cent déplacé ko def transport yëpp ñëw jaayee ko douze mille est-ce que mun na nekk non loolu bu nu am loolu boo leen ko buggee loolu la woo wooyee maanaam. lu autonomie autosuffisance alimentaire autosuffisance en riz Si vous ko bëggee nag boo leen kilo 50, da ngeen di am am kilo parce que waa Inde dañoo bàyyi un leen bëggee am autonomie <laughs> ngeen bàyyi lekk ceebu siyaam bi ngeen bàyyi lekk ceebu jàmbur yi parce que jàmbur yi dañoo dem bàyyi ji ko am ko donc loolu kenn mënu ko wàññi ni ngeen nit ñi di leen gëmloo ni noonu lañ koy wàññee loolu da ngay am lu ñu naan souveraineté alimentaire souveraineté alimentaire maanaam nga dem ba souveraineté mooy seen liberté yow nga moomal sa bopp nga moomal sa bopp bu boobaa nag <laughs> day fekk ngay bay comme waa Siam di bay comme waa Pakistan di bay comme waa Taïwan di bay comme waa Inde waaye mënumaa dem jël ceebu jàmbur awma souveraineté alimentaire dem jël ceebu jàmbur sàccuma ko mu jaay ma ko jaayee ma ko kilo jaayee ma euh, cinquante kilo bi a vingt deux mille ma ñëw fii wàññil la ko di la ko jaayee douze mille <laughs> xanaa ma ko sàcc xanaa dama ko sàcc sàcc rek lay mën a doon sàcc kese lay mën a doon boo sàccul ceeb bi jënd ceeb bi teg ko ci poor bi teg ko ci bato mu déplacé wu ñëw <laughs> loolu mënul nekk. donc bu ñu bëggee ceeb ba yomb trop comme ni ko ñenn ñi naan eh nañ ko wàññi noonu lii dafa tuuti ne leen ñu bàyyi ñu ànd ak seen papa yi ñu def gàngoor ñu bañ a xeeb suuf si ànd jël pàppa jël yaay jël doom jël mag def ko comme waa Inde def ko comme ñu dem bay ji ci suufu faro yi. yow pare nag di ko lekk. ceebu waalo baa nga kenn du ko laal Sénégal kenn du ko laal te du ko jege loolu rek moom moo ñu mën a dimbal am ay industrie ceeb bi sax léegi soxlatul ay industrie boo xoolee ay ay ay Inde ay Inde ay Chine ay xoolal benn nit moo yor lépp waaw nañ dellu leen bay ji dellu leen bay ji dellu leen bay ji wa ceytu nañ dem delu ca ca ceytu bay ji wa Tamba dellu ca faroya bay ji zige so delu ca faroya bay ji wa kolna delu ca faroya bay ji wa luga dem ji ba ko defee léegi ngeen am lu uh, souveraineté alimentaire consommer local sen biir yi nag lek ba sen mbak fess bu boba jam ngeen di may ñëpp boo bugg bu ku bugul nak bay nak mom vraiment munoo réclamer ay affaire euh, noo bi nañ ko gëna a kii sa ne soit pas comme le chat, friand de poisson et déteste la nage. Ku bëgg akara da ngay ñëmé kaani. Mais comme un chat friand lolu mom mënu nekk souveraineté alimentaire moy ngeen jóg ñu bay ngeen jóg ñu bay Lolu moy souveraineté alimentaire man xamna ci dara parce que bay naa chaque vacance dama doon ànd ak sama waajur mu yoroon ay fas yu bari yor ay tracteur yor engrais yi xam naa ko li dégg nii xam naa ko de man bay naa de bay naa ngoos ngoos bay naa xotti naa suuf lépp xam naa ko nu ngi may gisee nii lépp kenn mënuma wax ci bay lu ma xamul bay naa ba sama yii wow koŋ yéeg naa fas di di di colli colli ba sama yii yëpp yàqu booy booy yépp xam naa ko nag la ngeen di gis nii dóor gi dàqay taxaw nu wommat fas xotti téye kii di xotti kër lépp laa xam ni ngeen may gis nii damaa bay ba naaw ni ngeen may gis nii ñu ñuy jox ay fiil ay fiil bay nu ngay mun a bayee nu ngay téye affaire bi da ko xoos xoos gi ray ray kii yi yi mu jóg lépp xam naa ko nu ngi may gisee nii moos moos gi tak tak tak tak tak dindi dindi herbe yu yàqu yi bàyyi moom mu taxaw moom kese jubb daf nii nga xam ne dara du kii lépp xam naa ko nu may gisee nii wëgg xam naa wëgg xam naa xont te it loolu ñu doon liggéey dañ ci doon jaay ba dañ ci doon dund suñu kër daa amoon ay magasin wu gerte gis nga engrais bii nii engrais yàgg naa ko jël di ko def ci ko di ko sotti ci affaire engrais engrais bay ba sama yii càng engrais yii di ko sotti ci ci ci plante yi di engrais yàgg saako engrais yi yàgg naa ko def gerte yi ñu def poison yi nga xam ne nga xam ne mbóot yi duñ ko mën a lekk wala gunóor yi duñ ko mën a lekk gerte yooyu xam xam naa ko façon gerte yi xam naa ko am na gerte yoo xam bu ci defee poison boo ko lekkee day wax xat ñuy bay xam nañ loolu même saako yooyu boo ko bëggee comme ñu bëgg gerte yi da boo bëggee ñëw bëgg tibb eh, non non gerte dañ poison moom mooy pour euh, gunóor yi duñ ko lekk ak yooyu yëpp xam naa ko liggéey naa ko man ay atti atti atti at ay atti atti atti at liggéey naa ko àll bi xam naa xotti naa ci ay hectares hectares hectares mais souveraineté alimentaire woo am na suñu kër ay seko gerte lañu yor ay seko dugub ay seko mboq mësumaa gis ci suñu kër kuy génn naa day jëndi gerte gerte gaan fa fees dell catégorie yëpp mosuma la gis ko dugg jógee suñu kër naan day dem jëndi dugub <laughs> dugub baa ngi suñu kër cere yi ñun ñoo ko doon bay sama yaay di defar cere ji nga xam ne man dama maa ko ñàkk bay ko ak sama baay buñ ko defee cere di ko dóor damay kontaan des fois ñu ne cere mboq mais fierté boobu ba ma koy am dama ne cere mboq bi may lekk di ba bokk naa ci ñu ko bay dañ doon lekk cere dugub cere mboq ñeex mi saf-saf lépp ñun ñoo ko <laughs> am nañ sëñ kër am nañ souveraineté alimentaire boobu ba jël di dem jaayi def ci ay saak di dem di ko jaay marché commerçant yi waaw <laughs> voilà gis nga kon nag loolu tey dem dem nañ ba ñun am nañ souveraineté alimentaire boobu soxla wuñ ko kenn loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg nag liggéey ba moomal ko sa bopp consommé local boobu ñu doon def même gerte gi maafe bi ñu doon def maafe gerte gu saf sàpp ñoo bay gerte gi voilà ba léegi samay frère ñu ngi ci àll boobu ba léegi samay frère ñi ngi ci àll boobu boo duggee Tamba terre yooyu ba léegi samay frère ñoo koy bay ñoom ñëpp ko yor ñii jamono ji bu ma demoon Sénégal fa laay dem bay moo yegsee Sénégal fa laay dem bay ñi nga fa di bay nii ñoom ñëpp commencé nañ <laughs> loolu mooy souveraineté alimentaire na ko ñëpp def na njaboot gu nekk jël àll am benn àll am suuf di ko bay ngeen xool léegi kenn duñ fi nekk sax di werante ay affaire yow ngeen foog ne ay wàññi ceeb ak wàññi diw wàññi wàññi dugub ak wàññi mboq man sama waa kër nañ ko jooy duñ ko jooy parce yor nañ ceeb yor nañ dugub yor nañ peut-être suukar la ñuy jëndi suukar bàyyi ñu ko mais lépp luy ceeb luy dugub bàyyi ñu ceeb lépp luy dugub lépp luy lii lépp luy lii <laughs> alors c'est ça loolu gars yi am nañ programme pour financer culture bi am nañ programme bi loolu mi ngi ci mi ngi ci souveranté alimentaire bi moo demee ci projet bi di nga ko fa fekk bu fekkee bind nga projet bu dëgër pour doo euh, fa am da nga bëgg a bay et tout mun nañ la woon yoon booy jaaree pour am financement yi nga am projet bu dëgër nga yóbbu ko foofu gars yi mun nañ la financer de toute façon loolu yëpp ci volet euh, euh, souveraineté alimentaire bi la. boo paree rek boo ñu laajee man mun naa la directionner boo yore projet bu dëgër. voilà mais projet nag ñu jox la nga ne ko warax jeex na de mëq mëq projet mëq moom jeex na moom mëq mëq yor sa projet boo xam ne bind ko ay at indi ko lépp dóor jox ñu jox nga ne ko warax wan dem taxawaalu ji wala dem wuti sa ñaari moto jakarta ñu la dawalal fii gis nga yooyu sàcc yooyu yooyu jeex na yooyu mooy je yooyu détournement de gi yooyu noonu de semence ak détournement ñu jox la nga dem ji ay fële nag yooyu jeex na yooyu moom kaso la attention nag yooyu sénégalais dàq bind projet fekk gëmu ci dara lu muy bind lépp buy jot financement ba di ko dóori feneen lii mu tëddee ci caka lii mu dem wut ci ñaati moto ñu koy dawalal fële lii mu nag nangam lu mu bind la muy def dara bokk ci yooyu nag moom mooy toog muy dox ak banditisme loolu jeex na na ngeen ko xam nag balaa ngaa dem di dugali projet ne la wóor ni loolu nga nara def bind projet yoo mën a waaye jëfee koo jafe xam ngeen li may wax waa ña demoon dee rek ña demoon kii ak yooyu ñoo xam nañ li may wax bu ñu bindee a ñu jox leen ñu dem financé ko si Z wala ñu mujj ko ci cagaja ñaata ñoo fi ay milliardaire <laughs> waaye loolu moom next boobu na <laughs> wax moo neex ñaata ñoo fi yoral ay milliardaire <laughs> next boobu sama maa ko moom nag sama next la rapport yi xam nañ li may wax voilà ñaata ñoo fi dem DER financer ñu ne ko warax <laughs> wala ñu dem def ci wala dem taxawalu wut ci ñaari jakarta dawal fi wala ben taxi ñaata yo nak yo yo sont voilà wax nañ leen ko ngeen def beaucoup attention ñii foowuñu de voilà donc euh, comme nous avons gars focus ci liggéey bi gars ñi ngi ci donc ñun ñoo leen mën a jàppale ñi nga xam ne nag dañuy mbow nañ leen bàyyi ñu mbow xaj yi dañuy mbow waaye gaynde yi dañuy jàll ñële lépp lu ñuy redressé rek ñoom ñoo ko fi def ñoo ko fi yàq yàq bi ñoom amuñu lu ñu wax góor sax warul wula débat ak waa APR ñoo sàcc alal ga ñoo sàcc suuf sa ñoo détourné semence ya lépp ñoo ko def ci mbon donc dañoo nekk di jubbanti jubbanti nag foo ko déggee mooy lu juboon la ñu yàq bañ koy jubbanti donc ki yàq ki dëngal kooku moom man du ma débat ak yow waa APR moom aw ma lu dul en ci ñoom aw ma lu dul en bu fer sax ci ñoom ay dëmm laa gis ci ñoom ay dëmm laay xool di gis ay dëmm ay reykatu ay lekkatu yàpp de nit ay nankatu deretu doomu aadama laay gis ci ñoom plateau bu ma dem fekk leen fa bu ma leen ñuusul wala noq wala xeex ñoom du ma ci débat ñoom parce que ay dëmm du doo débat ak ñoom

ont un délinquant fiscal, foncier, financier, criminel de sang. Je ne débat avec Jamais. Ils ont des comptes à rendre au peuple sénégalais. Ils ont des comptes à rendre au peuple sénégalais. Voilà. Je ces manipulations, mais je ne peux pas m'en passer de leur de leur man munuma ko Sonko ga amu ko keneen amu ko léegi ñi ñuy manipuler les manipulables ñoo war a góor góorgóorlu ba kenn du leen manipuler surtout tout ñi ñuy manipuler ñoo war a góor góorlu am àq ak yelleef bu ñu jox seen njureel ba ñu bañ leen manipuler man loolu rek laa gëm man gëm naa ne sama baay ba ca Kaolack ak sama ndey ba ca Kaolack jur nañ góor goo xam ni pour nga manipuler ko surtout tout un problème bu ma neexoon nag ma bàyyee ko ñu may manipuler mais dama dama jomm ni ak sama baay li mu daj ak sama yaay lu mu daj neuf mois nga xam ni bakkanam xajoon na ci jur doom doom ji taxaw nooy bopp ba nga xam ni golo bu ñëw fooye la man damay jàpp ne sa yaay moo gën sama yaay parce que nan la sa def ba jur un man sama yaay nalaw bay jur un manipulé man loolu dama ko mus a bañ damay jàpp ne bés bu ma toogee doon le manipulable bu kenn damay japp ni ki yaay mo gën sama yaay parce que yaay jurna na kuy kuy manipuler mais man sama yaay jurna na ku ñuy manipuler lool mënu mako nangu motax c'est très très très très très difficile de me manipuler très difficile luma xamul dama dem ci source bi luma comprendre dana dem xam ki lan lay développer mais paresse intellectuelle mo sonnal yenn sénégalais ñen ñi nga xamni ñom amuñu paresse intellectuelle boobu te di ay manipulateur ñooy dem déglu waaja mu wax développé def benn procédé bu am solo boo xam ne mun nañ ko sax jàngale ci université yi mun nañ ko jàngale ci fac yi waa ji ñëw dagg lu ko neex këppati lu ko neex wala monte ko fu ko neex jox ko kenn juste dans l'intérêt de le manipuler ou dans l'intention de vouloir le manipuler kooku bu faa nekk jël temps am au lieu de la source malheureusement les sénégalais ne lisent pas Ben phrase lañ leen di manipuler buñ ci sansam wala livre manipuler mais si vous avez dem ci source bi dem déglu gis ah qui procède def wala explication non c'est extraordinaire mais malheureusement les manipuler nous ne bëri internet parce que loolu que les tonneaux vides font beaucoup de bruit Qui dem en live Mollah la gis nu nous ko développer nu mu nous sujet bi nu ont ko indé nu mu expliquer expliquer gis du dafa nous du parce que les mots dégg nous nous ni nous fu mu nous nous nous bi lire na livre bi ba ci ñay commenté ñëpp quatre vingt dix pour cent ñëpp kenn liiru livre bi parce que boo liiree dara ba fekk ko fa ñooñu dem dagg fenn ci livre ba ñëw indi jox la génne ko ci contexte am génne ko ci livre bi ñooñu ñëpp ñuy commenté ñëpp ay milaar lañ ñuy commenté yëpp ay manipulé lañ quatre-vingt-dix-neuf pour cent ay manipulé lañ. ñu fay rey seen bopp jaay xam fekk yow waa ji partagé loolu da leen a manipuler kon il faut sénégalais góorgóorlu ci bañ ku la manipuler il faut que am benn défi bu ñuy def ne man duñ ma manipuler loo indi ma dem xool source bi loo indi ma dem xooli source bi xaar ma dem xooli Mollah Morgun live bii je suis sûr que du ko effacer ma dem xool yére bii la sol mbaxane bii la sol ma dem dugg xool ba gis yére ma déglu sama Je prête attention ah ok il la développé lii la wax la ah c'est bien non j'ai compris non kooku sa na fait manipuler les gens, mais malheureusement sénégalais ont une paresse intellectuelle nit dina dund Sénégal nous Sénégal lire livre te nee intellectuel la boo ils tey intellectuel mu Nous loxo mu dund Sénégal ba lire livre. da nekk sax Sénégal ay Mariama ba ngay liir ay une si longue lettre ay euh, lu lu mu tudd yoo nga xam bouquin yoo xam ni ñun suñu papa yi ba léegi ñoom moom lañu doon lire le euh, euh, dormeur du Val yooyu nga xam ne ñun moom lañ liiroon jamono yi boo ba léegi moo nekk Sénégal ba léegi moo nekk ci programme yi te dañ nga koy lire malgré juste parce que <laughs> da ci am examen wala dañ la ciy jàng boo ci pare pare nga ci foo gis livre doo ci xalaat lu dul xaar ma xotti feuille dem jaay pour am ñaari cornetu caaf foo gis livre xaar ma xotti ko xool nan laa koy jaayee pour am ñaari cornetu caaf yu ma lekk ku ci liiru sous l'orage wala nga liir ay insi l'anglais wala la la la la la la la la dormeur d'Ival wala xaw ma lan vol de nuit Il de lañ de nuit une si longue lettre l'os de mort l'âme sous l'orage Il n'y pare pare nañ ca pare nañ ca loolu moo tax nag mu peuple manipulable <laughs> voilà germinal Emile euh, Zola il faut gars yi il faut gars yi bàyyi paresse intellectuelle bi jël seen temps di déglu lu am solo di lu am di di suivre donc gars yi di leen woo ci suivi di leen woo ci protection de de ce projet incha allah di ngeen ci am ndam bu soobee yàlla kooku moom je vous le promets di ngeen ci am ndam lu rëy bu soobee yàlla incha allah voilà kon di leen sant di leen gërëm di leen bëggee bu baax a baax a baax kontaan ci yéen bu leneen amee rek dinañ indi mais instant yi gars yi wàññi nañ prix yi ñi ngi avancé nag ñoom ñi ngi dem topp leen leen bu leen taxaw bu len don don ay xaas bin top len ci projet bi yenen ak yenen ñi ngi ay yi ñi ngi de toute façon ñi ne fi def kenn du ko fi def kenn du fi def gis di wax ay affaire ouvrage ay lu fi ñom Macky Sall liggéey Macky Sall dafa tabax en moins de trois mois kan mo fi dugg ci douze waxuma douze en moins de trois mois c'est que gis nga waa affaire yi ñu yabaate lañ rek ñu yabaate lañ ñu ne non Macky Sall terre bi mais Macky Sall deuxième mandat bi la fi teg terre bu mu demee ba torox ba sàcc ay milliards la doo ko def ay milliards la sàcc ci terre bi doo ko teg terre ci deuxième mandat aéroport bi ci deuxième mandat aéroport bi premier mandat ci Ablaye Wade la tàmbale ab aéroport ci Ablaye Wade ñoom ñëpp loolu la ñuy def dóor rek la ñuy def loolu jeex na bàyyi ba sama mandat war a jeex ma ñëw am lu ma def pour mun a relancer waat lool la ñuy def loolu jeex na.